waaleykum asalaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp lu toll ci ñaar fukk ci doomu aadama yu nu daal di woolu gendarmerie def lu ni mel ca toglu ginnaaw bi nga xamante ni service yi ministère commerce dañu daal di fa suuloon lakk euh, li nga xamante ni mooy produit yu baaxul ci jëfandikoo ñeel askan wi ñu demoon di ko sullee ka euh, jëfandikoowaat ñooñee lanu ca woolu ca toglu gëstu yi di wéy ci juróom-benn ci nappkat yi réer géej boobaak léegi ñeel waa yi géej ñaari bato benn hélicoptère euh, kilifa yi daal dinañ ko mobiliser directeur protection ak surveillance des pêches ni xamlé euh, dal dina sax ci turu ministère euh, bi nga xamanteni mo yoré yore nap mi baxé njaboot yi ñooñee réer géej ab dirangile ñaar ci ay millions walu yoon ak njeextalu ko déglu gi ñeel mbiri Petro-Tim waa Timis Corporation ñoo war a tëj rang ba tey jile donte xamaguñu ka leen di togal ci tribunal Ndakaaru ni ñu ko waxé déglu gi ci kanamu doyen des juges sombe Sall dina wéy tay ci xibar sport gi Malal Junior Diagne wàllu culture soxna Ana Rocha yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. gannaaw bi euh, kilifa yi daal di euh, dem amal ak incinération maanaam euh, lakk lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki tonnes yi ay produits yoo xamante ni baaxut jëfandikoo ci lekk ministère du commerce def lu ni mel démb ca toglu am nag ñenn ci askanuk dëkk yi nga xamante ni ñoo wërngaloog bërëb ba demoon ca foofe ñu doon lakke yooyu produit doon ko récupérer ko sulliwaat am na ci nag ñenn ci ñoom ñaar fukk ñu gendarmerie woolu leerali Abdou Diouf Diagne. ñoom ñi ñu ngi jóge ci ay dëkk yu mel ne dugaar Gandul ak lu dañoo daal di xaar ba takk der yi nga xam ne ñoo doon aar bërëb boobele dem ñu daal di dem sulli li nga xam ne nag mooy ay lekk te benn doomu aadama wuru koo mën a dugal ci biir gémmiñam ma ñu yor ay peel ay saret ay saaku ak sax ay paan produit yooyu nga xam ne nag ñoom dañu koy génnee dañuy faral di ko yóbbu seen kër yi di ko jëfandikoo ñeneen ñi nag dañu koy yóbbu ci marché yi di ko jaay ginnaaw bi ñu jotee xabaar bi gendarmerie nag daal di sa bërëb boobele aadama la ëpp sa ñoom nag ay jigéen lan ak ay xale yu ndaw wa góor ña ñoom dañoo ëpp sens daal di topp lëndëm gi rek daal di daw wa ci fàttali nag askan woowu nag lu miin lu ni mel la ndax lu yées juróom benn weer rek daal di nay am jigéen joo xam ne ñàkk na bakkanam ca bërëb boobele daf doon jéem a gas ngir sulli baxam dina am ay produit yi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne jërëjëf euh, Abdou Diouf euh, jërëjëf euh, ñu waxtaanee leneen muy wàllu wër gi ñeel juróom-benni nappkatu caaroy géej yi réer boobaak léegi kilifa yi Sénégal nag mobilisé nañu ñaari batoog benn hélicoptère ngir rek wër gi ñeel mbokk yooyee fukki ci fana ngi ñu réer géej muy xibaar tukkee ci directeur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug càmmute waaye may gët gi ñeel napp mi ci Sénégal moom capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye mu ngi woon caaroy géej démb baaxee sax njaboot yi ñaar ci million ci turu ministère des pêches ak économie maritime victime ñu déglu ko capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye ak Ndongo Ka information bi nak ñun ñu ko jot le 19 bokay set donc ñett ba ñeenti fan bi ñu ree rek lool moyen yi nga xamni dañ ko am muy avion muy euh, vedette bu marine génné na vedette bu ñuy wax Sangomar le 19 boole ci ñu demander avion français bi le le Falcon 50 mu décoller def 4 heures de vol ñun bu ñuy def surveillance des pêches ak euh, Falcon boobu ñetti waxtu daf ñuy doy pour ñu wër waaxu Sénégal yépp mais bi yoon mom nek na ci jaww ji pendant 4 heures de temps pour seet gaal googu loolu rek moko ko won le lendemain avion bi dafa amaatoon benen exercice exercice ak sunu patriote de haute mer bu ñuy wax Kédougou ñu profité walé ci exercice bobu nonu waxat leen nañu défat survol donc ñaari fan ñu tégalo muy survolé lu wara a mat ñeenti waxtu di xol gaal yi nga xam dañ leen doon sét Kédougou bi nga xam ni bokku woon ci recherche yi ñu dérouté ko mu arrêter exercice bobu parce que exercice militaire la woon mu arrêter ko pour ñëw jàppale Sangomar ci recherche yi ba tey jii nii ma leen di wax tey ni nii vedette Sangomar ak Kédougou ñi ngi géej di sét seet li ci nak sax li nga xam ni loolu amuñu won sax droit bi hélicoptère Frontex dañ ko décollé lo spécialement pour loolu ak li ñuy wax la vedette de la guardia civile espagnole bi moom sax génn na def recherche. capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye ci leral walu tourisme ak Foundiougne ak dee gu mu dee euh, ci seetlu ko kilifa ya fa ndax ab diir a ngile foofu ca Foundiougne hôtel yaa ki héberge yu bëri ci ñom di tecc lool nak euh, dafa yóbbu ñu bari ci walu ñakum xey du chômage Famar jamé président syndicat initiative bu lépp lu jëm ci promotion tourisme ca Foundiougne lañu ci déglok soxna Aminata Goudiaby bi ak RFM kumpa jeex

wàllu xibaar bokk na ca weeru décembre li ko tàmbali kon Sénégal dina am euh, lu ñu naan euh, calculateur ordinateur la bu xereñ boo xamante ni euh, ci ay performance yu yéeme dina ci yegg loolu nag xibaar la tukkee ci ubbitam ndaje bii di forum Galien ci li nga xamante ni nag mooy wàllu woowooy mboolam acteur yu wàllu wirgu gu yaram rafetlu nanu ko rawatina pharmacien yi Abdoulaye Diop daal dina leen dëgtal micro bi. du qualité ak def test clinique garab yi bokk na ci yenn ci mën-mën yu super calculateur bi ñuy xaar fii ci weeru décembre bi machine daal di jur ab yaakaar ci ñu ñuy woowee les gens du médicament Birame Faye di ab pharmacien. moi personnellement j'apprécie man mii ci euh, sama bi bopp rafetlu naa mbir mi ndaxte lu baax la ci pharmacien yi rawatina ci askan wi bu fekkee ne xam naan gàllankoor yi garab yi baaxul yi di leen jural rek loolu lu baax la. donc j'apprécie. beneenub pharmacien bi moom di rafetlu ñaari fonctionnalité yu supercalculateur bi mën naa ni paaka ñaari boor la kii dafay xool day càmbar garab gi ñuy fii dugal ba xam garab gu baax la wala garab gu baaxul loolu dinañu dimbali bu fekkee tamit boo xam day garab gu jox nit mu xool ba xam baax na baaxul buñ ko joxee machine mooy gën mbir mi warul yam ci xibaar kase loolee mooy bëgg-bëgg ki ñu njëkk a je souhaite que vraiment que ça se fasse ngi ñaan am ci jàmm te mu am ak réew mi dañuy suivi ay mbir yoo xamante ni te mujjantal ga doo ko teg ay gët. pas de résultat. ginnaaw Côte d'Ivoire at bi ñu génn Afrique du Sud ci atum 2016 dina am super calculateur am bi lépp machine dina tax ñu teg ab jéego gu am solo ci wàllum recherche scientifique waaye tamit ci wàllum koom-koom. doyen des juges ci wàllu yoon di wéyal déglu gi ñeel mbiri Petro-Tim tey sax daanaka la gars yi tëj rang bi ak ñi nga xamante ñooy waa Timis Corporation démb ci kanamam euh, maire bu Guédiawaye Aliou sal fàttali ni waa Timis Corporation ak njiit la Franck Timis tey jii kon lañ ca war a déglu donte xamagunu ka leen fay teewal waaye jàpp leen ni tey jii la kon njeexte gi ñeel yooyu audition ci mbiri euh, Petro-Tim waa aar lu nu bokk ñoom ci wàllu woowe euh, ñeel njariñ ak alalu Sénégal nan ca taxawee boobaak léegi ci xeex bi ak di sàkku mbir yi leer dal di amalat li nga xamanteni moy mooy seen yëngu ci conférence de presse la koy mandargalé ci kanam toutes lay doon 10 heures ci bërëb ci avenue Cheikh Anta Diop RFM juroom ñetti waxtu tégal juroom benn minute. RFM Radio askan jàpp gi ñeel uh, ay uh, uh, lim yu am solo ci wàllum drogue ci poorab ndakaaru ay ay bés ci ginnaaw Moustapha Cissé Lo moom yëkkati kàddu jëme ci Mamadou Diop Decroix vice président bu assemblée nationale moom ne naatangoom boobee député xam na ñi nga xamante ñooy kàngam yu mag di gros bonnet yëngu ci wàllu trafic ak drogue dossier bu jëm ci wàllu faux billets ñeel député bi di député ba woon Seydina Fall Bougazelli Moustapha Cissé Lo ne bu sañoon ñu respecté li yoon di wax wàllu présomption d'innocence njortal ko ak ñàkk ñàkk def ba fileeg yoon di àddu ci moom mbir ca Abuja la yëkkate yu kàddu ci micro sunu ndaw soxna Fama Dione Bougazelli suma rakk day waxtaan ak man ba bi may daataan ñëw ñëw na suma bureau ñu waxtaan ci ay lu muy doxee li am solo mooy dama bëgg peuple sénégalais it ñu am confiance ci justice gannaaw am na tuuma guñ ko teg ñu may ko moom mu mën a défendre ndax mu ngi ci loxol yoon démissionné na euh, yéenewuma ko te li ci des nag mooy vigilance su état ndax état moo war a sàmm loolu am na at ak genn wàll jëloon naa fi benn discours wax ci mbiru drogue wax bu gàtt ba waxoon ni procureur mën na ma woo woowuñu ma at ak genn wàll léegi dégg naa même ay politiciens yu ci ci wax Mamadou Diop dama ko défier ni ko moom xam na ne Sénégal am na sénégalais yu tuddee seen boppi kilifa tabaxi tabax yor ay oto centaine de millions di jaay drogue xam na leen yooyu kàddu Mamadou Diop Decroix jox ko genn ak solo ndax moom daa foogoon mu ne ci njëlbeen ak moom Moustapha Cissé Lo ni mu waxee woon xam na ca dara waraloon sax mu sàkku ci assemblée nationale euh, ki mu defoon question orale ngir euh, assemblée nationale ubbi ci enquête ñu déglu Mamadou Diop Decroix ak Hadj Ndate Diop. waaw damaa ree ba sonn ree naa ma ne Moustapha Cissé Lo moom. doy na waar ndax moom loolu mu waxoon. ne xam na gars yi ci laa sukkandiku hein quand même xanaa kay mu toll ni moom ak ni mu ko waxee ma jàpp ne kon

drogue baa ngi fi vraiment na ko gouvernement bi seet na procureur bi dugg nañu teg commission d'enquête loolu moo ci am solo waxi Moustapha Cissé Lo moom ginnaaw foofu la ci toll moom awma lu ma ciy wax Foundiougne la ñuy dellu ak euh, président syndicat initiative de promotion touristique bu Foundiougne di Famara Diame euh, ci li nga xamante ne noonu lañ fa yittewoo lii di tourisme ak euh, tolluwaay gi dañoo gis ne daal daanaka dee na foofee fa ñoom Foundiougne ndax ay hôtel ak auberge yu tëj yóbbu ñenn ci chômage ñu teewlu ko moom Famara Diame ak Aminata Goudiaby yaakaar bi nekkatu fa tout simplement parce que toll nañ jamono joo xam ne fi la réceptif hôtelier yi ëppee woon y avait beaucoup plus de campements pour comparer à d'autres zones mais fi mu ne nii li xew mooy que campement yu bari par exemple dañuy tëj déjà hôtel bu mag bi sax tëj na ay mère de famille père de famille ñoo xamante ne par exemple voilà dañ doon yor benn famille gérer benn famille aux alentours quatre personnes par exemple bu ñu liggéey liggéeyatuñu donc loolu metti na quoi sans compter aussi yeneen campement yi nga xamante ne dañ amoon benn genre type clientèle am na ci yoo xam ne dañu tëj man am na ci yoo xam ne comme kaw hôtel Foundiougne sëriñ bi ñu ngi ciy def ay jéego wax nañ ci lu yàgg mooy que ñu jéem a xam kan moo moom hôtel bi parce que déjà fi mu féete fi mu nekk rafet na jekk na moom bu fekkee ne dem na ba mënatul par exemple gérer hôtelam non nañ ko jël ci moom mbaa mu jaay ko jox ko keneen koo xam ne nekk na ci disposition mën a gérer hôtel bi parce que quand situation boobu noo ku xam liggéey bi ko bu ko yoree investir ci mais beneen affaire la ba ci RFM association jeunesse musulmane pour le développement Kurel gi ñoo taxaw ngir delloo njukkal sargal euh, kilifa gi di Mourchid Mohamed Yan Thiam ak taxawaay gi ci l'islam euh, namut ca taxawee moom gi waral ñu fas ko ngir liggéey bi mu def ci wàllub diine association jeunesse musulmane di sargal Mourchid Ahmed Yane Thiam Mansour Sarr moo nekk njiitug association bi. dafal hommage sunu baay euh, Mourchid Ahmed Yane Thiam ku ne Mourchid Ahmed Yane Thiam euh, ne Sénégal ku ne Sénégal ne Mourchid Ahmed Yane Thiam muy kenn ci réew mi di di euh, doomu réew mi jàngee ci réew mi màggee ci réew mi itam yëpp. temps yëpp mu servi ko vraiment ci peuple Sénégal kon kooku Sénégal da kaa amee njukkal diine islam amee ko njukkal waaye peuple bi yëpp amee ko njukkal. cérémonie bi daañu ko amal le premier décembre bii di ñëw ay thèmes yu bëri nag dinañ ko waxtaanee ngir rek gën a fësal liggéeyu kii di Ahmed Yane Thiam. solo cérémonie d'hommage boobu incha allah bu suñu papa Mokhsin Mohamed Yan Thiam mhm, taxawaay gi am na solo lool donte bi ma koy tudd yaa ngi tiit foog ni koor gi ñëw tàmbali sport bi acca ñu door rek ak wàllu bitu soog Alaaji Assane gannaaw ba nu la siyaare siyaare auditeurs yi Sénégal nga cay waajal seen jongante tey ak waa Émirats Arabes Unis ca coupe du monde ba ca fële Paraguay tey nag ndam rek la ñu war a yittewoo am ko bu nu bëggee dem ci euh, jongante bi topp ci euh, phase de poule coupe du monde googa waaye laataa lola am na ci kenn ci équipe bi koo xam ne dafa ràññeeku di Mamour Diagne sore ci am dina xam lek moom bokk na ci ñi génne Sénégal ci lëndëm lëndëm gi ñu nekkoon Mamour Diagne mi nga xamante ne nekk dafa defoon ab doublé ci jogante Sénégal gu njëkk ci gile compétition seen diggante ak Russie daal dinay yokkaat xadarama ni ki dimanche ci ngoon ñee la ñaareelu jogante gaynde ak biir ci sëkk gi moom milieu de terrain bi nag mi ngi daal di gën a ci match bi ci deuxième tiers temps bi ba ñu àggee sax ba ci ñaar fukki simili ak juróom-ñaar si la Mamour Diagne daal di dugal butam gu njëkk ci jogante jongante gannaaw gi nag mu daal di enchaîné waat dolli ci yeneen ñetti but mu di ñeenti but yoo xamante ni dugal na ko ci genn jongante googule. dèjà bi ñu jëlee dafa bi ñëwee après ñu ñëpp loolu daf ñu metti ba tel bi ñëwee sax reer sax defuñu ko li mën a wax parce que kenn newu fi woon après. mais bon li ko mënoon faj mooy ñu ñëw xam nga yokk yokk suñu su kàttan deuxième match bi ba am ndam ko ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom ñent muy mesurer 1 mètre 77 ak 69 kilos Mamour Diagne nak mi ngi daal di ak équipe nationale bu bitu soccer atum 2016 compétition majeure ak équipe nationale gi nak ci atum 2018 la ci chamel el Sheikh ca Égypte mu newon Coupe d'Afrique des Nations wam bu njëkk waye itam Mengok Sénégal daal di koy jël mu nekk mbekté lool ci moom jamono ji ñu tollu nak ak ñaar fukki match yi nga xamanteni amal nako ko ak équipe nationale bi Mamour Diagne daal dina ci duggal ñaar fukki but ak ak juróom-ñett ñu wàññi ci juróom-benn yoo xamante ni dugalagum na ko ci gile compétition ñu nekk di méngoo ko ñaareelu coupe du monde am Mamour Mamour Diagne nag xam na bu baax la koy xaar moom ak kii ñoñam. du leneen lu en fait victoire parce que tey jii booy xool euh, match boobu aussi mën nañ xool ne final la. parce que kuñ doon nga toog kon donc dara duñu xalaat dara lu gaye match bi après jeex na après ñu moo di nekk joueur yu ñu gën a ràññee ci wàllum beach soccer ci àdduna wërngal këpp bu ñu sukkandikoo ci coach adjoint am di Mamadou Diallo lu mën a nekk la parce que dafa am facilité boo xam ne amul kenn ku ko am si équipe bi mooy li ma ko wax toujours nee naa ko yow yaay mit si équipe bi mais nekk mit si équipe bi tamit waroo ko wanee si donc war a wanee si terrain bi Mamour Diagne nag xamal nañu ne itam Sénégal kenn mënu la tudd beach soccer di ko bàyyi bàyyi ginnaaw moo tax nag ci gi la coupe du monde mi ngi dundee yaakaar ñu àgg fa sore mu ne woon Soda Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir radio Futur Media. ñu waxtaanee wàllu ñaari tali ñu ngi waajal championnat bi ren bu baax nag la ñu bëgg mooy desaat ci Ligue 1 bi te loola day jaar ci ay matukaay ki taxawaay yu wér yoo xam ña nga cee jàggatu ak waajal ñeen ñu sax ca tubaab jalaaw fa la ñu daal di kon làqatu ngir tàggatu bu baax kenn ci seen njiit ya di tàggatkat ba di Papa Thiaw am na leneen lu mu dénk ci ay kàddu Abdou Diouf Junior ñu waajal saison parce que mon père dit ñi ñëpp ñëw si Touba Dialaw pour regroupement wu ñaar fukki fan ak benn yoo xam ni dañuy cherche plus euh, cohésion groupe bi aussi tamit travail au niveau physique tactique et technique loo xam ne daf ñuy topp sur saison bi yëpp moo tax ñu jël effectif boo xam ne mooy jeu yi mooy yaakaar defal ñoom saison bi plus ay quelques jours yoo xam ne suñu suñu équipe junior bi ñu génnee pour passer si saison boo xam ne ñu defe na ko guddi daal moo tax ñu ñëw jël ñi pour regrouper leen parce que comme dañu bëri ay jours yu bees am cohésion boobu en tant que solidarité Nous, recrutement dañ côté ciblé mooy yenn partie xam ne ci amoon ay aussi ay joueurs yoo xam ne ciblé finalement am nañ leen donc dañ ciy sant yàlla déjà et tamit plus euh, tamit euh, commencé créer en tant au niveau groupe pour trouver benn groupe boo xam def pour pour pour atteindre suñu objectif ñun trop ak moyen club de yooyu yëpp objectif mooy jéem a saison bi nu mu gën a gaawee nag pas comme année i passée c'est-à-dire que euh, ñaari coupe yi ñu euh, joué suñuy chance à fond loolu mooy suñu objectif ren nu waxtaanee football ca bitim réew tey dinañu door a Ligue des champions juróomeel bi journée Galatasaray Bruges ji équipe bu Papa Aliou Ndiaye mooy jongante ji ak ñoomin euh, Bruges bu Crépin Diatta ak Amadou euh, kii nag di Real Madrid bu ñoom Benzema ñoom ñoo di kon dalal ñoom Gana Gueye Paris Saint-Germain Icardi Mbappé ak ñooña euh, Étoile Rouge bu Belgrade ak waa Bayern Munich ñoom Pavard ñooy dem ca Étoile bu Belgrade laale ji City Aguero du ca bokk Manchester nee nañu démb mom Aguero dafa am gaañu gaañu bu tax mu war a ab ngir Guardiola di entraîneur mom moo joxe xabaar bi ñoom ñooy kontaan seen stade ba équipe bu Shakhtar Donetsk Dinamo mom ma nga jëm Atalanta Bergam, Lokomotiv Moscou dalal Bayern Leverkusen Juventus ak ñoom uh, Dybala ak Ronaldo ñoom ñoo kon dalal Colchonero yi nga xam ni ñoom di équipe bu uh, Atletico Madrid. Euh, ci jàllu athlétisme ak itam xalaat bu nu yëkk ñi dañu war a delloosiwaat ndakaaru meeting international bi am na ci athlète yu ko rafetlu Amadou Ndiaye bokk ci ñoom mu gis ni loola war naa mën a ne moom mi nga xam ni 400 mètres ee lay def waaye nag nee na euh, loola delloosiwaat dafay laaj itam ñu am ay stade yu jàkk yoo xam ni mënees ka faa def Mamadou Oumar Ba. meeting international bu Dakar dina tax ndaw yi gën a intéressé wu ci athlétisme Amadou Ndiaye di athlète international sénégalais di itam spécialiste 400 mètres et. dañu jàppale si compétition yu yu préparé comme lu si mel ni championnat d'Afrique jeux olympiques yi euh, en tamit euh, dina jàppale athlète locaux yi nekk foofu mën a def compétition yu mag yi en plus ñu gis tamit euh, depuis meeting Dakar bu amatul ba léegi niveau athlétisme bi demeetewul noonu affaire bi dafa commencé dellu ginnaaw ki fi jëloon ñaareelu place bi ci championnat d'Afrique di xamle ni autorité yi dañu war a deferaat piste yu yàqu yi ci yenn stade war nañu jàppale si côté piste yi parce que maa ngi dégg Ibamar dañ defar en plus léegi tëj bu baax dañu benn piste plantée moo tax euh, Tëngéej moom Ndiaye jàpp ni compétition bi buñ demee ba di ko amal Dakar stade Léopold Sédar Senghor moo ko war a dalal. ñu daal di kon yemale foofu alaaji xabaaru tàggatëram ñu sërëxal bi ñeel ñu nu wool woon démb ca toglu toll ci ñaar fukk yu gendarmerie tegoon loxo ginnaaw bi nu fa demee euh, doon sulle ko bëgg récupérer euh, lenn ci produit yu euh, baaxul ci jëfandiku yu fa ministère du commerce lakkoon ñooñu ñu ca woolu woon ci xibaaru suñu naatango Abdou Diouf Diagne bàyyi nañ leen yeew yi ñu dellu ca seeni dëkkuwaay. xibaar yi. ci ñu yegg si ci wàllu culture bi ànd ak euh, soxna Anna Rocha. maa ngi édition 2019 bu international internationale du livre bu Nakaru, Talatji ji lay programme bi amal cérémonie d'hommage jegleel ko Rahmatou Seck di Amadou Lamine sal démb nag bis bu ñu pays invité d'honneur bi Mouy Guinée mu itam occasion ci directeur Bou l'Armatan Guinée Mou Warti ci jafe-jafe yi nga xamante mom moom édition bi ci mooy itam ci biir sous-région bi yëpp Amadou Ndiaye nekk conservateur de bibliothèque moom moo tekki ay kàdduwam jàngoro bi benn du tia gin sax téré amatul du tia gin téré qualité amatul mais xalé yi ñom ñoom ñoo xaw a bàyyindeku ko gogo nak responsabilité yi ñu partagé la benn mi ngi doore ci famille parce que ñoom ñooy njaboote xalé yi Ñom ño njëkk ci ñom, donc ñom ño leen wara a gën a livre bu wéso mu dem école bu démé école nak dafa am ñukoy encadrer il faudrait que ñu jàngkat yi bëgg livre di ko lire. loolay xew Sénégal moo xew foofu waaye ñoom tam ràññee na ci ñoom yi effort yi Sénégal di def di gën a ñaax yi ndax ñuy dem ci téere yi ak ci bibliothèque yi ak nag bibliothèque yi aussi di jéem adapté wu. jamono yooyu académie banlieue culture moom mu ngi ci waxtaayu festival Hazard mu di xew-xew boo xamante ne entrepreneuriat bi lañ ko jegleel mu nar a doon édition bu njëkk bi ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp fanweeri fan ci weeru novembre gi ñu nekk ci euh, goxu yëmbal ak ca nous ñu amal jano ak taskatu ni Azar festival lëkkale lépp li nga xam art musique cinéma pecc graffiti bàyyiwul dara. Amath Sar moom académie banlieue festival. festival bi ñu ci jublu wane lépp loo xamante ni maanaam la musique ci cinéma mais aussi ay formation dina am aussi ay panel dina am euh, aussi ay graffitis lépp luy yëngu maanaam ci wàllu culture urbaine. la tax a jóg di fas yéenee génnee bépp xarañteef bi nga xam ni moom moo nekk ci banlieue bu Ndakaaru. ndax ndaw boo xam ne amaana amul liggéey ndaw boo xam ne bi amaana amul formation mun na bañ a mën a xam fan la war a mën a orienté wu ci jamono ji ak amaana ak nu mu dëppoo moo tax dañuy liggéey ci loolu bu baax te jox ndaw yi ci formation jox leen aussi tamit ay information à que tey ñoom ñu mun a demal seen bopp. Azar festival di ab daje boo xam ni tamit dañ ciy ñaax ndaw ñi tekki fii lu mën a nekk la. association bi day xeex ci wàllu immigration irrégulière jàpp nañ ne askan bi lu tax ñu fiy jóge di dem dañoo gëstuwul ba gëm seen bopp en tant que ay ndaw jàpp nañ nag mën nañ toog fii mën nañ fi tekkee ci réew mi te pour ñu toog tekk ci réew mi nag combat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci war a mën a investir ñun ñëpp ñoo ci mën a def suñu warugal. li ci yees ci édition bi di wàllug entrepreneuriat gañ ca boole ak ab exposition vente boo xam ne nii dina dajale lu dab dabal ñaar fukki ndawi entrepreneur ay projection de film wàllum scène musicale ay ay atelier waaye tamit ay waxtaan dina bokk ci ndaje mi. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.